yaay jàlla ba jàmbur aas mooy bëree ak ki nga ne mooy Matar Ndiaye ñaari ménagères yu mag yi waaye arbitre baa ngi laaj si si ndax pare nañ kii di arobas dafa rakk la si doomu jalaaw waaye dafa dippee boppam arobas bu mag ma mbay mari waaye kii di ara booy bawal ndeysaan maam la si maamu la nijaay góor a soog waaw maamu talfa la nijaay góor a soog booy bawal mu dippee boppam booy bawal bu mag ma ma nekkoon olympique d'Angleterre kon ñu arbi xale yaa ngi noonu ñu ami ko leen. Mamou Talfa Bawal 2 at Arobas. nga Ada dafa dafa jokki tànk bi moo tax mu xaw a glissé. Tambaraan sa bi la daf may fàttali ko keroog ba muy bëreeg caatu ay da. Eh, bu képp timis da koy mbot da koy mbot mbëru wet la. da koy mbot waxoon naa la day song waaye Ada day aada day mboot. waxoon na waxoon naa la ko anu ko la waxoon naa la ko. laa ilaaha laa ilaaha illallah. su ma la waxatee takal téere. waa eh aada lu mu daan nii. waxoon naa la aada baas day songu. aada nu mu ko daanee. waaye aada booy bool day mboot. waaye aada nu mu ko daanee. kadeeram yëpp da ngaa mboot. aada nu mu ko daanee. kii mooy aada booy bawal. ay waay aada booy. kii mooy aada booy bawal. kii mooy aada booy bawal. il est le meilleur de sa génération kii mooy Ada Boy Baol. Ada a ngi noonu. Ada a ngi noonu. Ada Mboor Mboor baa ngi noonu. waaye bi la ziar dugg na si yir géew gi tey digganteem ak Caatu Yoof Ami Koné su ma la waxatee takkal téere takkal téere. takk naa ko téere. takk naa ko téere